mbokk yi man samay kàddu lenn rek la jëm ci mbir mi nga xamante ne am na ci dëkk bu du boobee di diwaanu Touba entre Baye Fall yi ci image yi nga xamante ne ñu ngi koy partagé boobaak léegi ak kàddu yi nga xamante ne kii di Serigne Cheikh Thioro Mbacké daal koy yëkkati mu nekk kàddu yu am solo waaye mbokk yi bu leen fàtte ñu bëri ñu ngi naan Touba Touba Touba forcé wuñ kenn mu ñëw dëkk fa. ki ko sanc noonu ku tedd sanc ko moom ka def fa lim fa war a def ki ka toogal ne dëkk bi nii la ko bëggee ni mu ko bëggee nag noonee lañu koy defee kon bu kenn yëkkati ay kàddu di ko jëmale ci euh, Baye Fall yi nii wala Baye Fall naa ku xam Baye Fall xam ko ci diggal yëf yi c'est simple boo dëkkul Touba maanu fa bu fekkee yaa nga fa ndigal bi nga xamante ne Serigne Mountakha Mbacké moom la digal jëfe ko boo dee ba xam ne mënoo koo jafe jëlal oto ak say bagage nga génn dëkk bi dem beneen dëkk loolu c'est simple àdduna du neex a neex ba bàyyi fa téye am benn dara door fi nit koo xam deful dara képp ko fa def dara nag di nga ko jëflante ak ñoom ci ndigal la ñu nekk beneen bi si diggante ki nga xamante ni moom moo di Serigne Bassirou ak Serigne seex Thioro Mbacké coow li bëri na si loolu ñoom ñaar ñoo bokk kenn muy kan muy Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul kon politique fii lañ koy fekk fii lañ koy bàyyi. ñun ñi nga xamante ne nag ay taalibe dong lañ wala ñun ñi nga xamante ne ay doomu aadama dong lañ lenn moo ñu war mooy yëkkati ay kàddu yu rafet seen diggante waaw ndax sëriñ Bassirou Abdou Khadre am na ñu ko bëgg ñoo xamante ne bëgguñu dara lu ñaaw lu jóge ci ñoom am na ñoo xamante ne nag ñu ngi ci sëñ Cheikh Thioro bëgguñu dara lu ñaaw lu jóge ci moom léegi yow boo yëkkatee kàddu gu ñaaw wax ko sëriñ Bass keneen ku nekk sëriñ Bass tam noonu la koy defee bu yàggee yëf ci jëm boppam day mujj àgg foo xam ne waru foon àgg dañuy bàyyi xel yenn yi tey moytu yenn yi nga xamante ne fii àddina la lépp loo fi gis dafay jeex politique moom du daara ñoom sax yaakaar naa bu dëgg rek neexoon politique moo war a daw topp seen ginnaaw waaye ñoom war ñoo daw topp seen ginnaaw politique ndax seen ma bàyyi na leen lépp jërë ngeen jëf